waaye mbokk yi gis ngeen ñëpp a ngi seen liggéey waaye Yusuf moom bàyyi na lam doon def ñëw di ko taxaw di ko dimbali moom fu mu nekk rek dana def dara loolu am solo la nit ki foo tool rek fexeel ba di def loo xam ni dana la jariñ waaye dana jariñ fi nga nekk nee naa la bàyyi ko ndaxte lii dañ koy tere dañuy tere ko dimbali kenn nee naa la nga bàyyi ko bàyyi ko bu dimbali jugal aywa nga duma yangoog ñi ngay dolli ba tey di duma allahu akbar waa ji kontaan nag mi mu fa firkapta ànd ak duma yëpp nee na bàyyil duma yi góor gi nee na ko bàyyil duma yi déglul bu baax boo continuer di ko dooraat beneen yoon ñun ñëpp danañ arrêté liggéey bi danañ bàyyi liggéey bi Yusuf kenn du ko dóor waaw ndaxte daf leen amal njariñ nag moom na àndu ci moom woon bàyyi ko. kon ni leen seen liggéey Youssouf yaa ngi dugal sa sa bopp ci ay jafe-jafe ngir ñun nee na man li ma war rek laay def ndax li ko war mooy dimbale nit ñi taxawu leen waa ji nee na ko Youssouf daal toujours yaa ngi dugal sa sa bopp ci ay fitna yoo xam ni yaa ngi sonal sa bopp ngir ñun mun ko man li ma war rek mooy moom lay def. mooy doomu aadama dama ko war a dimbali ndoxte loolu mbokk jikko yi yonent la ci makaarimul lax la bokk gis nga gàddul na ko mbir ma ndeysaan wallahu fi fi awnil abdi ma dama al abdu aw awni axi yonent bi salaa sallam nee na yàlla dana dimbali nit ki fekk yaa ngi dimbali sa mbokk yàlla dala dimbali ngeen la muy métti métti yëpp boole na liggéeyam ak liggéeyu waaja léegi kon nag ku ci nekk mën nga ci jànge parce que li tax ñu indiwaat kii bi mooy ku ci nekk rek man cee jànge nee na xam naa ni man Mimfer capté ma le mi ngi tan tëral ay plan pour fayu ci Youssouf la ko defoon ci kaso liggéey bi jeex na préparé leen ñu dem ngeen foofu kon leçon ba ngeen fay jëlee ñun ñëpp ñu mën ko faa jëlee mooy taxawaay bi nga xam ni feeñ na fii ci Seydina Youssouf alayhi salaam loolu lépp day dellu ci makarimul axlaaq gis ngeen martaw bi ko yàlla jox fi mu toll waaye teewul rek mi ngi taxawaay ci nit ñi nekk comme seen surga nekk la sur le serviteur euh, de la nation c'est-à-dire kuy liggéeyal xeet wi yonent bi nee na woon saydul xawmi xaadimuhum xeet wi ki leen di liggéeyal di taxaw ci seen mbir kooku mooy seen sang waaye Zuleyxa mi ngi contrôlé gis na ni daal fi mu nekk ni la ko jaaxal mooy gars saa yu ñu xëyee rek ay yéreek ay lekk ay naan ak ay garab ak yëpp ñu ngi koy yóbbu ca prison ba ca loolu musta am kon Youssouf moo tax loolu am loolu nag dérangé na ko. amiin xidma sayidati ndax soxna si am na lu ñuy liggéey dafa am mbir yoo xam day xew ci pale bi ca man yëguma ko. soxna si man day léegi ko mag mag laa nag léegi ba tey du ma deñ ba tey depuis ba ma nekke xale ba léegi lu ndaw ndaw rek ma jox rek information. kalima ma doy na. man xam naan daal waa Palais bépp dañoo mujj nekk benn mbooloo ku ci nekk di jéem a def lu baax di ko defar Yuusuf di ko yóbbul ay lekk ak ay garab nee na ko loolu ko la jox xibaar boobu loolu dara néew ci ah loolu du xibaar buy jaaxal nit ah kay jaaxal na ma lan moo taxoon ñuy tëj Yuusuf est-ce que kontaan ak bégal ko moo taxoon ñu koy ñu koy tëj ko nee na ko fàtt naa tuuti waaye nag. usine euh, bu dee dafa nekk foofu ak mbégte waaye teewul ñu sàkk yeneen pexe rek aman nga beneen place aman nga beneen temps pour mën a andi beneen plan encore comme que loolu def laa déranger dinaa def loo xam ni kaso ba dana sop soppeeku ci Youssouf nekk safara ci moom du ma ko bàyyi dinaa def loo xam ne daal dégg naa kaso ba léegi neex na ci moom dana mujj wëlbatiku nekk safara ci moom kon soxna si bàyyeegul ba léegi waaye su ngeen ki nga xam moo yor kaso bi toujours mi ngi contrôlé waaye mi ngi gis ni Youssouf mi ngi gën a def lu baax Youssouf nee na bala ngeen a sol yére yi da ngeen di sumi seen yére yi nga xam ne seen yére ràpp yi ngeen soloon su mi leen ko ngeen sol yii nag yu bees yi kon daf ko sàkk woon ci waa woo yére sax ndax sa yére dafa rafet ah kay soxla naa ko de ndaxte yére bi méngoowut ak place bi damaa bëgg mel ni prisonniers yi yére yi sol man yére yooyu laa war a sol gis dafa dafa jox mag cër mooy jox ko mag mi ni ko léegi na ko séddale loolu am solo la waa ji nee na yére yi de méngoowut ak sama yaram yi ko ah kon da ngeen soppa da ngeen da eh, rek weccoo leen mbokk yi gis ngeen joxe cër gi Youssouf def mooy ndeysaan bi mu ñëwee lépp mu tegaat ko ci loxoy ku ko mag pour mu continuer ko waaye yére bañ ko joxoon moom xalaat na ni daal euh, na ko jox keneen dimbalee ko keneen au lieu moom mu koy sol mooy al isaar wa yuthiruna ala anfusihim walaw kaana bihim sax dañuy gënale seen bopp ci ñeneen donte soxla nañ mbir ma waaye waa ji de ñu xool ba xam ndax dina jël ndeysaan gis nga xool xool ba xool baa yàqu ndeysaan nu nangu gis ngeen iñaan nga feeñoon ci mbokk Yusuf ya feeñaan na fii ci kaso bi ci moom moo tax bërëb nekk rek loo fay liggéey rek am na koo xam moom du musa saan ak yow waaye bu la teree baare demal rek nga xoolante nag ka ka yor liggéey ba ndeysaan waaye feeñal tamit mbégteem ci moom ndaxte lim sàkkoon mooy ñu may leen ay yére ndaxte yérin yor yàgg na ay at ak mu nekk seen yaram yi waa ji tamit dem na sàkk loolo indil nañ leen ko waaye daa mel ni kii moo ni mi ngi noonu jëm si nag ci kaso bi di gëstu ñaari gaayam yi jàmm yàlla yi yàlla na wàcc yéen ñaar loo bëgg looy def fii yow sama doom wax ma ndax da ngeen a jàpp waaju ñuy wax apu fis déedéet yaay kan loo seet ak moom man jege ñaaleem laa dañoo ay jamono gisuñu ko xamuñu ndax mi ngi dund xamuñu ndax dafa dee njabootam gi ak jege ñaaleem yi ñoom ñëpp dañoo jaaxle seen xel dalul ba tey ak neexoon ñu gis benn jeexit ci moom wala ñu dégg benn xibaar ci moom bu ko defee mbégte ñu mën koo dugal ci xolu doomam yi ak doomam yi ak yaayam ji nga xam ne mag la ndeysaan ki mhm. السجينان اللذان وضعناهما ñaari prisonniers yi ñu fi tëjoon ñoom ñu luy seen tur lu nga bëgg ci ñoom ñaar dafa am waa ju leen di wër abu piis la tudd daa mel ni daa xam kenn ci ñaari ñooñu ah. mal amr lu xew lu ngeen bëgg ci man yaay kan ak loo bëgg yow apu piis loo bëgg ci apu piis apu piis daal laay wër ndaxte ay xibaaram jot woon benn xibaar ci moom bàyyi leen ma ñëwal dinañ xam ni ñuy def ak yow wàcc leen ma ah, ajaban ay waay liy yéemu na waay borom nel bi ndaxte yow da nga bokk ci labbe nekk ca kaso kii ba xale ba lala ca église ba wala yow da ngaa bokk ci ñi nga xam ni ñooy mbokk yi mu ni jege ñaalem la gaawal demal ci Potiphar nee na ko kii damin moo may yónni nee na am na benn waay bu ñu jàpp bu ñuy wax Apopis ah benn waay bu ñu jàpp boo xam ni Apopis la doon seet cëy nga day comme que état dafa toll ci enquête. te waxoon ni lépp lépp lépp lu feeñ lu jëm ci ñaar ñooñu ñu jàppoon cee ñu doon def coup d'état bi nañu fexe ba surveiller leen bàyyi leen xel lépp bépp information bu jógee ñoom rek ñu xool ko waa jaa ngi noonu nag jaaruwul ngeen may tëj pour leen maa tëj dinaa leen boole ki nga xam ne mooy Alex Maahu nga xam ne mooy labbe bu mag waaw soo ko gisee baal ba gis ko soo gisee nga jàmbat ko dégg nga waaye tey moom fi mu nekk nii yow suñu gan nga bàyyil ba gis ka ngay wax wu leen na jug ci jéem a tëj tijjil buntu bi tijjil buntu bi yow mi nga xam ne yaay gardien bi tuxalal waa ji yóbbu ko ci beneen prison bi bi mu jàkkaar loolu góor gi jommi na de waaye kilifa gaa ngi noonu di ñëw Potifar ndaxte comme que enquête bi ci moom ci loxoom la ko buur bi tegoon ca moo ni bépp lépp lu ndaw loo xam ne jëm na ci ñaari ñaw ñu ñu tëjoon ñu doon def ah, coup d'état bi képp ku ñëw di leen laaj wala mu leen di seet si na ngeen fexe ba wax ñu ko rapidement xam ngeen kii ma ni moom ñu tëj foofu ñu jàpp labe boobu moom moo nekk bras ki nga xam ni mooy alix maahu maanaam lebba mag bi koo koy koo koy loxo ndeyjooram moo topp ci wetam comme que moo ko digaloon moo leen digaloon pour ñu def coup d'état bi donc toog nañ ay jamono amuñu benn information coup d'état ba mujjul sotti léegi nag mu ni na dox nag pour seet si leen jéem seet ndax nekkuñu ci prison beeg ñooñu waaye ndax moom dana ko jural jàmm ñëw pour xool kan la hmm, daa mel ni xam na ko de kii mooy kii moo ni labbe la bu nekk ca église ba mooy loxo ndeyjoor Alix Maahu nga xam ne mooy labbe bu mag lu mu seq ak Apophis. laqad asbahtu ala yaqinin al'an anna makra as-su'i bi hayati Amin Hawtib. xam naa bu leer ni luñ euh, pexe bi ñoon def ci Amin Hawtib kon la pexe ya ma nga jóge woon ci Alix Maako nga xam ne mooy moo jiite église fexe leen ba bu kenn jokkoo ak moom bu kenn xam fi mu nekk. Mhm. léegi na ngeen ber Apophis ak Binarus ber leen ci cellule individuelle yi nga xam ni yal na yàlla rëbb leen moom ñan la mere waa église bi la mere. kenn gën leen a xeebu arju lakum alhalak yàlla ngeen alku yàlla ngeen dee yaa li man ahmaq laqad aradtu an man damaa dof man maa ko doon nëbbal mbir mi waaye gis nga ko ñoom amuñu kersa amuñu yëg-yëg yow yàlla nga tuskare bu fekkoon seeni loxo agsi na fii kon da seen mbir leer na bu yàgg ah yaa ngi doon yaakaar ñu ñu ñu ñu bàyyi la ah waxoon naa la nga nga weer leen ñu ngi nii di ñëwuñu yónneewuñu. looy jàmbat. ngeen leen yéen ñaar gaaw leen. Hmm? lu nar a xew. ila ayna taxudunana sawfa ta'lam ngeen may yóbbu ngeen ñu jëme di nga ko xam doxal ñu dem di nga fi ngeen jëm. yéen ñaar xam ngeen kee moon yi nga xam ne mooy labbe bi wax leen dëgg waa ji da doon bëgg a wax gis nga waaw xam nañ ko de labbe la bu nekk ca dafa ñëw di leen seet si bu ngeen seet lu tax mu leen di seet man kay xaw ma ko de xaw ma de gis nga bina rus bëgg na sawaay wax dëgg waaye sawaay moom ñu xel dëgg ñu bàyyi la rek فكر جيدا xalaatal bu baax فلعلك تستذكر amaana di nga fàttaliku لن يبحث xalaatal bu baax la ngeen لسبب parce que amul am na seetu la ngir am lu ko ñàkk a waral kon am na lu xew fàttaliku ma dara de fàttaliku ma ma seet ak moom de danaa la dimbali pour nga fàttaliku xam nga dangaa fàtte naa la dimbali léegi pour nga fàttaliku bul def loolu déedéet waay defuma dara bàyyi leen ma xaw ma dara ci li ngeen may laaj xaw ma ci leen yaakaar naa leen ay waay dëggal leen sama kàddu gi gëm leen li ma wax xaw ma ci dara bàyyi leen ma waay ay waay bu leen ma dóor ay waay yaakaar naa seen mbaax bu leen ma duma waay ak leel bii day ah. de ci leel bi lay caw moom prison kay buñ la fa tëjee moom boo waxul moom di nga di nga danañ jaar yow foo xam nañu um waxal dëgg rek ñu bàyyi la. mbokk am na ci prison ay cellules yoo xam ni dañ lay boole ay góor jigéen ñu ñu ñuy foog yow foo yu bon ay waay yar yi doy na waay ay waay dumay doy na waay bàyyi leen ma dinaa dinaa wax. dinaa wax dóor yi doy na. ndeysaan. ay waay ndeysaan mbokk yi. ponk la ngi jooy de. alixmaahu moo ma waxoon moo ma moom a ma. moo ma waxoon na na na na na naa rey buur bi maag Binaaruus lañu lañu santoon mbir mi waaye Binaaruus daa ragal plan bi ñu tëraloon mooy ma def ma def poson ci ñam bi Binaaruus moom def poson ci lekk gi ci naan waaye man def naa ko def naa lañ ma waaye Binarous moom deful dara dafa ragaloon moo tax deful lool loolu moo tax nag suñu plan bi daal di échoué suñu kii bi daal di sooy nag bu Binarous moom waxul woon lépp dana leer kon buur ba nañ ko rey cëy leer na kon léegi alif maa mu leen yebal moo tax lan moo tax waxoo buur bi li xew damaa déggoon ñu ni buuru misra yi daanaka ñoom genn wàll yàlla lañ waaw ma ni ma jàppoon ni yàlla kenn mënu koo rey moo tax mënu defuma tamit lañ ma santoon est-ce que rey yàlla mën naa nekk sax zawjubihima fi sijn al aam yóbbu leen fa ñëpp nekk léegi léegi jëru ngeen leen di ber comme nga xam nañ li xew yóbbu leen li xew yóbbu leen fa la ci nit ñi ndax léegi il faut ñu boole leen nag euh, pour ñu xam ñun comme ay témoins lan ñu yóbbu la nag ci enquête bi ñu war a def ñi nga xam ne ñoo leen yabaloon muy allègement waa église ba muy làbbe il faut nag léegi ñoom ñu nekk témoins parce que mbir mi léegi leer na. a fexeel ba bu kenn xam seeni tur ñoom ñaar ak fi ñu nekk bu ko kenn xam ndaxte ñoom seen seen dund dana nekk ci danger parce que mën nañ leen a mën nañoo fexe pour ray leen. waaye nag kii kii leen doon wut si nag moom lu may def moom mi ngi noonu ndeysaan daa sonn. abqu alayhi fi sijn al-munfarid. moom bàyyi leen ko foofu ber leen ko bu leen ko génne lu dul li temps muy waxtaan ak ki nga xam ne mooy buur bi. ayna user siif. ana user siif. dama kaa bëgg gis. demal woo ko yow déedéet أريد أن أراه من بعيد dama ko bëgg gis fu sori tiim ko di ko gis te du ma gis loolu laa bëgg bëggu maa jàkkaarloog moom kanam ak kanam ah gis ngeen Youssouf ñëpp ko namm esaan buur bi mënta dem lu dul ma gis Youssouf waaye nee na bëggu nag gis gisanteeg moom direct léegi nag dafa bëgg a xam Youssouf ci lan la nekk waaye mbokk yi gis ngeen Youssouf ba tey nee na ñi fi tëj ñëpp ko bëgg ñëpp ko bëgg ñi ñi ko tëj ak ñi ñi ko ñi fi tëj nee na moom ñëpp ko bëgg waaye moom bëggul ñu bëggul lu rafet. ndaxte li nit ñi soxla mënu ko def. ndaxte dafa mel dafay yor jikko yi tooñ maanaam dafay tooñ ba pare day kii dafa rëy man daal lépp lu ma yaakaar ñu moom gis naa ko benn muy dimbali nit ñi wala mu leen di waar di leen taxawu ndeysaan moom loolu mooy liggéeyam ci prison bi dimbali nit ñi ak di leen taxaw wala mu leen di jàngal. nekk koo xam ne day liggéey ñoom ci wàllu social waaye tamit nekk seen guide spirituel waaw di defar seen ruux ni sama yaakaar yëpp ci moom laa fa wekkoon waaye ñoo ma tere gaayee ma tere gaayeen mooy soxnaam waaw bëggoon naa sama yaakaar yëpp bëggoon naa lépp lu ma bëgg rek mu def ko sama yaakaar ci moom laa ko wekkoon waaye nag mayuñu ma soxna si mayuñu ma kii ndaxte moom soxna see ko xaw a kii tey damaa demoon am na ko kenn ku bokk ci euh, euh, église ba ku ñu wax kii moom dafa ñëw seet si woon ka nga xam ni mooy prisonnier ba. ba ma déggee loolu nag ci laa daal di ñëw ca kaso ba nag ndaxte ba ma leen laajee nag def enquête bi gis naa ni Ali Abu Fiis moom moo doon sàkkal pexe ki nga xam mooy buur bi waaye nag la la ko waral mooy Alix Maahu moo leen yebaloon pour ñu pour ñu rey la léegi nag sàkk ay pexe ci ñoom nag doy na. damaa bëgg daal euh, ñu seet nu ñu nu ñu ci génn ñu nag waaye xam nga ni doole ji ñu joxoon teraange yi ñoo xam ne moom la ñu joxoon waa église ba moo tax tamit ñoom euh, doole yi ñu amoon doole ba plan bu nekk ñu bëgg koo tëral am armée ba bëgg a dal sa kaw. nee na ko yàlla yi de yàlla yi amun waruñu ko woyofal nag bu ngeen bëgg ndax dañuy toog di seetaan ah ñu noppi rek. gaa yi di dal suñu kaw ñiy wor bëgg a dal suñu kaw loolu ngeen bëgg yéen loolu mënta nekk. yajibu alayna an nantadira fursatan munasiba. dañoo war a xaar beneen occasion boo xam ne méngoo nag jamono bu ko defee kenn dañoo war a fexe ba kenn du xam xibaaru ñële binaarul ak apopis ak kimoon ñoom ñëpp comme que dañoo war a def ay témoignages yu mag nañ leen fa bàyyi ba ci kanam ñu xool nee na bu leen xaar. labbe yi bu ñu leen may benn occasion nañ dal seen kaw nee na ko gis nga tëral naa benn plan boo xam ni dinaa mën seet nu ma jëflante ak ñoom li ma bëgg daal mooy mooy nga woo leen woo prisonniers yi pour ñu enquête leen nee na ñoom jàkkoor nañ ni ñoom am nañu relation ak ak eh, kii bi église bi léegi nañ leen tëj ci prison bi rek nee na déedéet dañuy dagg seen bopp yi amul tëj nee na bàyyi di man d'accord mooy pour suñ tuur seen deret tëj leen ci kaso bi doy tuutal leen loolu doy na sëkk waaye tuur deret moom man wax dëgg man bàyyi ànduma ci ndax doom ji moom day sànn ba mu jàkkaarloog Youssouf am na lu Youssouf dem ci def ci moom moo des ci moom ba léegi. moo tax lu lu ñaaw bëggu xam naa ne sa doom ji dafa dafa am yërmande moom bëggul ñuy tuur deret waaye nag lan la ñuy def nag nguur dana toll ci am doole foo xam ne lu nekk mën na ko def. waaye Amin Xawtiib xalaatam daal la bëgg ñu def ko bu fekkee Aboubacar d'accord na li lam def moo ko def léegi ñu seet ban buñ ne ba ba lépp leer rek danañ am benn décision buñ jël danañ am benn dogal buñ jël boo xam ni moom dana leer kon gaaw leen préparé jotaay boobu ñu seet enquête bi nan lañ koy defee ñu dajale ñi nga xam ne ñooy labbe yi ak ki nga xam ni euh, ñi nga xam ne ñooy ñoom Apopice. ñu doon tante li nga xam ni mooy euh, coup d'état bi bu ko defee ñu def enquête bi kon fi ngeen gis ni ñaari ñaari buur ñoo fi feeñ ñaari doole euh, labbe yi euh, maanaam ki nga xam ni mooy Potifar ak ki nga xam ni mooy Amin Xawtib Amin Xawti mooy buur bu mag bi waaye kii moo yor gouverneur bi lépp lu jëm ci état bi ci loxoom lañ ko teg kële nag moom mooy mooy buur bi nga xam ne daanaka yàlla lañ ko jàpp lu xew soxna si daam lu beesaat xibaar yi dikkal na ma ni condition yi Youssouf nekk dafa neex nee nañ daal ma nga fa nekk ci bis yu neex a neex ne loolu kay maag gisal sama bët maag gis sama bopp kenn du ma nett lu ma ko léegi Youssouf mujj na nekk leer nekk na seen leeri bët ñëpp bëgg nañ ko topp nañ ko ci ginnaawam mais li ñu tëraloon kay mooy ñu mbugal ko duma ko loolu lañ bëggoon waaye bànneex taxul woon ñu kii yow toujours daal da ngaa bëgg di toroxal Youssouf rek ah, ah yow da ngay juum soxna si ah Youssouf kay yàlla xettil na ko ci say pexe. léegi palais bi dafa mujj ah, kaso ba dafa mujj nekk jardin bu rëy ci moom moo na mu doon jiitee sama palais bi noonu lay jiite nga xam ne mooy prison bu ñëpp a ngi ci ginnaawam léegi man damaa kontaan ci yi nga xam ne Youssouf nekk na ko mucc gi mucc ci say pexe mucc gi mucc say pexe man kontaan naa ci ah soxna si day kaani waat nañ ko ndeysaan sey allahu akbar xam ngeen mbokk yi kii moo gën a léegi ñu laaj leen benn laaj waaye ndaw si ak mbokk Youssouf yi moo gën a feebar kooku question question la boo xam yéen a koy tontu ku ci gën a feebar. man xatbu sayidati. soxna si lu xew. laqad xasabna alxaybata min jamii xutatina. ñun pertaat nañu suñu plan bi perte daanuwaat na. Youssouf du du def li ma bëgg du ma jébbalu ci samay bëgg-bëgg. est-ce que gis nga benn benn mbugal bu tax Youssouf jubal jébbalu. nee na ah yow dalal sa xel waaye ba tey yoon yi jeexagul man man sàggante gi nga sàggan ak plan yu yu yu daanu yi nga may jox yëpp dama cee doyal man. lépp lu ma def rek ngir bëgg sa ngërëm la moo tax ma def ko ma ay yéenoo ma ci woon loolu lépp lu ma bëgg rek mooy mooy réaliser say bëgg-bëgg defal la li nga bëgg waaye bul jàq bul jàq axbirini léegi wax ma nag ma alfikra allati tajulu fi rasik léegi ban xalaat nga amaat fi mu nekk nii ah ma ngay xalaat de la tadaxi al amra yamurru bi salaamin alayhi waaye mbir mi bu ko bàyyi muy yomb noonu dalalal sa xel da nga am beneen plan nan la léegi da ngay fexe ba xirtal ka nga xam ne moo jiite kaso bi mu duma Yusuf na ko duma daal amaana bu ko duma bu dumay méttee dana def li nga bëgg yaakaar nga dina def li nga bëggam ah nañu nañu testé ay yoon yu bëree bëri nañ làmb yoon yu bëri rek moom fekk defu li nga bëgg daal ñu làmb beneen rek man yaakaar naa ne boobu dina baax dinaa def lépp loo xam ni dana dana ma jox li ma bëgg sama jubluwaay daal li taxoon ma tëj ko mooy Youssouf defal ma li mu bëgg waaye bëggu moon Youssouf mu sori ma wax dëgg li ma tëj ko mooy pour mu def li ma bëgg rek man Youssouf sori gi ma sori mënu ma kaa dékku bu dee kaso bi dana ko yar kay dana dem def li nga bëgg yow da ngay fexe ñu indi ay ay ay plan yu bari rek. amaana di nga daj boo xam ne dana dana def li nga bëgg mbokk yi gis ngeen Youssouf mi ngi noonu ci ñaareelu journée ki fi nga xam ne mooy travaux forcés bi lan moo tax yàlla jéemuñu benn pexe pour xeet ñu fii ñu nekk waa amun moom yàlla ju mag moom lan la lan lañ man a defal yaakaaruma ne amun moo gàttañ lu de ñi gàttañ mooy yéen ñi fekk ay xeer yi dundul ngeen leen di jaamu di leen ñaan pour di leen sàkku it mu dimbali xeer yi nga xam ne ñi ngi di soxla pour jéem koo toj tasaare ko ni lan moo ko ràññeetle lu ko lu ko lu ko lu ko ràññeetle ak ak ak amun amun ah, dafa tale keneen moo koy sàmm di ko taxaw ba pare ngeen di xaar pour mu dimbali leen mu sauvé leen kon kan mooy ki nga xamee ni ci moom la ñu war a wéeru pour mu dimbali ñu ci kan la ñu war a sàkku ndimbal kon Yusuf bu dul amun am leen xel ca déglu jox leen seen wutal leen seen bopp yàlla joo xam ne soxlaalul kenn ku am doole lay doon ku am kattan lay doon pour man leen a génne ci kaso bi ngeen nekk ak jafe-jafe yi ngeen nekk faaw ngeen xalaat beneen waaye du amun de allahu akbar mbokk commencé nag nag di liggéey ci beneen phase gis nga def na yëgu ci wàllu développement wàllu social ci dimbalante ba seen xol yi mi ngi koy commencé moom ñëw gu njëkk gi ak ñëw gi bokkul nee na ko ah ñun daal xamuñu nag amuñu beneen yàlla xamuñu beneen yàlla bu dul amun moom rek lañ xam nag waaye du tee ngeen gëstu nag. yàlla ji ma leen di wax mi ngi place bépp yàlla ji nga yàlla ji ngay wax daal Yusuf waaye day jël alalu nit ñi di ñu tooñ ah di jël ci jigéen ñi gën a rafet ah comme ni koy yeneen yàlla yi doon këfe ah yàlla jooju ngay wax daal est du dañ leen di duñ mën a dimbali nit ñeeg yooyu yàlla ji may wax day yi ngeen wax yëpp yàlla yooyu duñ ko yàlla ji may wax du ko def yàlla jooju bëggul jëf yooyu du ko def. ku bare yërmande la ku yërmane yaram jaami àdduna ak àllaaxira la ku ñeewante la allahu akbar waaye waa koy déglu de waa jaa ngi koy déglu de am na lum nar nag xam naa mbokk liggéey ba jeex gis nga ña ngay gis ngeen Yusuf mbokk yi ñëw gu njëkk a ñëw euh, ci liggéey bi maanaam ci travaux forcés bi da leen doon dimbali di leen taxaw ku sonn mu dimbali la waaye waaratewul woon waaye gis ngeen ñaareelu ñëw bi mu bàyyi leen ñoom ñu dem ba sonn ba wax ni ñun daal war nañu wut ku ñu dimbali yàlla ju ñu dimbali yàlla ji doon jaamu doon leen ñaan ca biti muy amun war nañoo dimbali mu mu doog a xam ne nag kon waarate jot na mu daal di dugal nag ni leen yàlla joo xam ne day xeer la comme xeer yi ni ñuy dumaa xeer yi euh, di yàlla joo xam dafa soxla ñu taxaw ko jàppale ko yaakaar naa mënul mënuñoo xettali ñu ne ko yow kon ban yàlla fu ñu wute yàlla koo xam danañu dimbali xeet li ñu mu ne mooy ki nga xam ni mooy borom yërmande ju daj gi ci àdduna soxlaalu nit ñi dara ñu ne ko ah yàlla yi ñu xam kat mooy yàlla joo xam dañuy laaj alal di ñu di jël suñuy alal di laaj suñuy mu ne kooku ki mu ci jublu du kooku day mooy ki nga xam ne moom soxlaalul kenn dara mooy borom kattan kooku su ngeen ko ñaanee bis dana ñëw mu génn leen fii gis ngeen leçon boobu la Yusuf joxe euh, jàngal leen tawxiid wétal yàlla ci ay man-manam ci ay jëfam kii lu mu bëgg hey damaa bëgg gis ak Kidameen lu xew da ngaa ay yar da ngaa bëgg ñu duma waat la na ah mbir mu am solo li koy doy am na solo de lu am solo bu amul solo de préparel xamante nañ leen duma waat na baax d'accord naa ndeysaan léegi nag mbokk yi waaji la nar bi mu ferkapte lan la nar lu xew ndax dégg nga ay wax ak waxe Yusuf yéen dégg nga koy dégg déedéet dégguma ci dara dafa am dafa am ay jàmbat li mu doon wax yëpp ay caaxaan la moom moom gëmul asnam gëmul ki nga xam ne mooy euh, amun da koy sabote fu ñu nekk rek day sabote ci yàlla yi muy amun noo ko xamee damaa dégg tey waxtaanam sikki sàkkawul mu ngi woo nit ñi ca kaw ci wéetal yàlla ak gëm yàlla joo xam ne du yàllay yàllay waa dëkk bi du yàllay amoon moom la ñu doon def kon na nga déglu baax ay waxtaanam ca bàyyi ci xel. Yeneen farkeb te déglu ma Youssouf man li ma jàpp daal. moom mbiram mooy fexe ba boole nit ñi dimbali leen depuis bi mu nekkee kaso ba léegi taxaw fexe na ba kaso bi ñi fi nekk ñëpp seeni mbir baax na hmm? ñi nga xam ni wuute woon nañ defaraat na seen diggante léegi nag moom mbiram ak ak prisonnier noo ko jàng man tiit naa ci moom de waaw buy def loolu tamit mi ngi yàq seen pas-pas yi seen yàq seen ngëm-ngëm mu ni ngëm ngëm déedéet kay yow daal doole ji nga amoon fii ci kaso bi. jiite woon leen di leen jaay doole jàpp leen ya sa njiit loolu moo la metti bu mu boo fi ñëwee tey di ma jéem a kalaamee gi Yuusuf danaa la caw caw yu metti yow la nga amoon nga ñàkk rek moo tax ngay boole tey moom dem tey moom baal naa la moom bii moom baal naa la waaye boo fi ñëwee tey di jéem boole naa la caw lagal cey kon la amoon la mu bëggoon amu ko ndaxte waa xam ne Yuusuf nee na ko Yuusuf bi mu kaso ba léegi. melokaana waa kaso bi soppeeku na boole na xol yi taxaw na leen dimbali na leen lépp loo xam ni ak njaay àll la woon fexe na ba dindi ko fi mi ngi defar seen xel seen xalaat yi kon yow loole ji nga amoon rek euh, loo bëggoon gars yi defal la ko loolu daal nga ñàkk moo tax nga naan da ngay boole bés bu ma la déggatee nga naan da ngay boole rek ma cawaat la waaye mbokk yi gis ngeen yu euh, toujours rek. ما الذي أردت قوله للموقف كدمين ها كان moom lu mu doon wax kilifagi kilifa gi da a naral di waxal dëgg lu usurcif dafa bëggoon Kidamine dal ci kaw usurcif waaye tontu nañ ko nag kilifa gi tontu na ko mbokk gis ngeen kaso baa noonu waaye ñu xool ba tey usersif ci lan la nekk kon ñi am nañ kolute ci moom seen xel dal na ci moom waaye ñëpp ngi nelaw mu toog di leen garder di leen surveiller xool ndax amul ko tëdd tër yu ndax amul ko feebar ndax amul ko am jafe-jafe moom loolu mooy itteem itteem du boppam waaye nit ñi la itteem du boppam waaye nit ñi la seet ko ci liw euh, la mu doon war a sàngoo mu sàngee la ko waaye tamit xam ne ni kenn rek moo jare defar ci kaso bi léegi kooku lay jëm ci itteem jéem a seet nan lay fexe ba dimbali ko moom tamit caay ndeysaan سمعت أنك وشيت بي عند كدمان dégg naa da nga ma doon boole kidamin سأفعل أي شيء ممكن من أجل هلاكك lépp lu ma mën a def pour nga dee danaa ko def man loolu may samay pexe حتى الآن man pour pourtant def ma la lu ñaaw de ba léegi man damaa bëgg nga nga bañ a xuus ci ci caaxaan yi nga nekk rek. mbaa xam nga ni bañal gi nekk sa xol nga bañ ma ko da yàq sa ruux man damaa bëgg lépp lu may dox rek pour ñu nekk ay xarit. maa ngi yow xaritoo man noonee rek laa séq ak yow. yow koy ñaanal yàlla ma bañ am pexe waaye ma pexe naa la faat. waaye sama yaakaar du tas de man nag sama yaakaar du tas. lépp lu ma man tamit ci ci bépp pexe bu ma man ak xalaat bu man pour nga baax rek dinaa ko def mbokk yi gis ngeen ñaar yéeg-yéeg yooyu wute na kii moom nee na lépp lu xalaat rek pour rey Yusuf dana ko def Yusuf ni ko man lépp lu ma xalaat pour pour nga baax rek naa ko def waaye daa mel ni day ngeen Yuusuf ci ma ca kaso waaye am na ñu fay jëm de am na ay gan nag lan kee nga xam mooy Zuleyxa ak euh, Kalimama ñoom ñu ngi koy seeti mi ngi mel ni bi Yusuf nekkee ci ten ba rek mbokkam yi ni ñu sonne woon nekk ci biti Yuusuf nekk ci xel mu dal nekk ca biir teen ba xelam dal euh, mbokk yi nekk ci biti sonn lool gis nga noonu la mel fii tamit ci kaso bi xelam dal na amul benn jafe-jafe wax dëgg yàlla Zuleyxa soxna Koutivar ñëw na pour seet si kaso bi Kidameen الموقرة زليخة زوج حضرة بوتيفار جاءت لتتفقد السجن بوتيفار ñëw na soxna Potifar ñëw na pour seet si la muy kii رافقها في الجولة أنت nee na ko yóbbu ko ci tuur yi maa ngi ñëw ngeen ko ma ngoog euh, nee na ko léegi na dem na ko dugal ci kii bi mi ngi ñëw fekk ko fa تحية للسيدة زليخة ñu nuyu Zulaykha xayyatul aaliha alaykum wa ala saa'iri al-hurraas. yal na leen yàlla ji ñu ngi lay dalal ci fi ñu wax sa ji kaso bi nga xam ne moom la ñu tuddee. la zaala yumkinu wasfu sijni Zawira bil-mansi wal-mutahawi bi wujudi Zarsif. nee na ko jàpp naa ni daal. melokaanu kaso bi daal bëgg ni niñ ko bëggee woon melul noonu. nee na ko Youssouf tamit loolu ni mu fi nekk moom kenn mënu koo weddi ñëpp dañ koo bëgg ñëpp dañ koo respecté Youssouf du lenn dul ab jaam bu dawoon dañ koo andi woon pour ñu pour ñu yar ko walla waaye andi moo woon nag pour mu pour mu nekk fi ci bànneex loolu tax lu moo andi ko fu. لكن سيدتي السجن وهي صونتي السجن و و و وبمجرد ان تم حرمان xam nga kaso moom nekku fi defuñu ko pour nag muy muy muy muy xañ nit ñi seen liberté. إن السجناء يتم إجبارهم على العمل الشاق والمتعب في mën nañ leen a forcer nag ñoom ci ay liggéey yu metti ak yenn kii waaye nag day day tolloog la ñu def rek. déglul bu wax ci demin soxna si dafa ñëw dafa bëgg am lu mu gis lu mu ko jaral rek jar na lu mu ko jaral rek mën na la koo jox waaye dafa am lu mu bëgg nag. مثلا مثلا أي نوع من العذاب ban façon mbugal bi ngeen bëgg daal ngeen ñu mbugal ko Yuusuf daal xaw ma ko mu ne dafa bëgg ngeen duma ko dama bëgg ñu duma Yuusuf loolu laa bëgg duma dama bëgg ñu koy duma muy jooy may dégg loolu laa bëgg jooy Yuusuf laa bëgg a tey moo fi andi moom ko dégg naa bànneex la fi nekk moom gis nga jéem ko ger jox ko xaalis ah sey ndeysaan mooy gis ngeen ger gi ni mu bëree moom kilifa la daanaka moom dañ ko jàpp yàlla ci dëkk bi mooy kilifa ak buur bi bu laajoon rek mënoon naa kii saañu duma ko nee na waa loolu dinaa ko def li ngay say say ndigal dinaa ko wéyal user siif nag duma ko dimbali xaar leen ma maa ngi ñëw léegi ah gis ngeen nag jox nañ ko xaalis ni ko léegi dañoo bëgg nga duma ko muy jooy ñuy dégg ndax dina yem ak duma yañ doon duma apu pis muy jooy José José Arcif. waxtaan ceeg moom Zuleyqa ñëw dafa bëgg ñu lay mbugal ñu lay duma loolu la bëgg bëgg naa nag wëlbati xalaatam waaye bañ na nee na ko pare naa pour defal ko li mu bëgg defal leen li ngeen bëgg. cey pare naa de kon yow yeew leen Yuusuf ci bant ba allahu akbar nee na Zulayxa ñëw na li mu sàkk pour ñu duma la muy gis bëggoon naa sax wëlbati xalaatam waaye nanguwul mu ne man pare naa man Yuusuf pare naa de feeg daal duma ma mooy yàlla rek luñ ma teg mën naa ko tegoo li ngeen di def lu tax ngeen koy yeew lu mu def tey neen dañ maa bëgg a duma ay dañ maa bëgg a door ay yar waaye maa leen di ñaan ngeen muñ rek muñ leen rek dañ leen a dañ leen a ñu dumam waaye sax ñoom bëgguñu ko moo hmm? ko yar yaa ngay dal de allahu akbar cay gaa yàlla gis nga ñoom binaarus ñëpp a jaaxle nag ba tey xamuñu lu mu def ba tey li jaaxal nit ñi mooy lan la Yuusuf def pour ñu koy duma waaw kon saa ngi noonu nag ndeysaan di ñëw pour seeraan duma yi ak déglu jooy yi ab yonent mbokk yi ñuy duma xam ngeen ni loolu àdduna bu tukki la <laughs> waaye nag ndeysaan noon la nattu moom noonu la ñaanoon na yàlla yàlla dëgëral ko ba lépp luy nattu ak mettit ci kaso bi euh, mu mën koo dékku yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen def nañ ko lu mel nii nañ ko ba demee Taif boole nañ ko ay xaj boole kook dof boole kook ay xale ñu koy sànni xeer ak di ko duma lépp mu ànd ak mettit waaye muñ rek moom daal li mu ñaanoon yàlla mooy yàlla dëgëral ko ba mission bi mu bëgg a def ci kaso bi mu àggale ko lépp loo xam ni dana gàllankoor mission bi lu metti metti na ko dégg waaye na mission bi jàll allahu akbar bàyyi leen loor gi ngeen koy lor lan la la ngeen di def mooy lan liiru yëfu nit. allahu akbar ah sama gars yi joomi nañ de. wala quwwata illa billah mi far capté moom daa kontaan. ma <laughs> koy yóoxoo de. Ay, Allahu Akbar. lu li ma bëgg jox ma sa bopp ko mukk mooy yàlla moom jar na bakken bi des te waaye du mooy yàlla ndaxte yi ñu bàyyi ba mu nekkee ca biir teen ba ñaanoon yàlla mi yàlla dee jaayante nag yow ni duma la mooy benn yoon taxaw leen do doy na doy na mu jooy kay jooyagul bàyyil ba mu jooy ba pare mu ni bëggumaa dégg beneen baat arrêté leen yar yi tey allahu akbar tawaqafu hada yakfi arrêté leen taxaw leen bàyyi leen doy na tekki leen ko. arjuka samahni. Youssouf maa la ñaan nga baal ma nag. fii bëgguma la woon a duma. waaye du samay pexe. aw ma benn pexe pour pour pour lii. waaye ndigal la bu ñu ma jox. nee na ko amul benn problème baal naa la. allahu akbar gis nga day baale ci saa si. al afu inda inda al maxdara baale ci bi nga ne waaye tamit asabru inda sadamatil ula moñ ba nga xamee ni metit ba door na nee na waa ji baal naa la ci saasa allahu akbar cay moo tax góor yàlla du fayu moom armem bi gën a am doole mooy muñ waaye soo ne si amul li mu bëggoon de jooy di dégg ko cay ndeysaan intaliq demara nee mbokk yi gis nga yonent bi noonu la def bañ ko du bañ ko dumaa ba dumay metti ba ko malaaka me ne ndax ma daaneel montagne seen kaw dani baal leen ñoom dañoo xamul yaakaar na ëllëg yàlla génne ci ñoom ñuy wax laa ilaha illa allah ca loolu mooy objectif am ca loolu mujj na ko am Yuzarsif Yuzarsif ndeysaan ku am yar la ku am teggin la moom mënoon naa toog fa toog rek daal di daal di wuyu waaye déedéet ci yar beeg teggin gi dana ñëw wuyu ji kilifa gi ndaxte loolu leçon yi la yu muy joxe it moom jàngaleetul ci wax waaye day boole jàngale ci jëf même ci comportement. lan moo tax yuuxoo biñ lay duma dégg soxna si moom sax dara wax ne bàyyi leen ko bu leen ko dumaat doy na mu daal dem yoonam. Zuleyma xaadaa yéeme meram bokkut ak meru meruk borom xol yu wow yi cofeelam bokkut ak borom ñi borom xol yu rafet yi. nee na ko iñaana mun mun mënta not ay mbiram moom dafa feebar beneen feebar la am allahu akbar bokkut ak nit ñu xool moom dafa am feneen fu mu yége waaye dégg nga li ko waaj a wax nee na ko da ngaa bëgg a kon li Zulayxa moo taxoon ñu lay duma waaw waaw moo ndigal pour ñu door ma de cey gars yi di ne nañ kii fu ko toppee waay moom daal ay at ci kaso bi ba tey mi ngi ci moom rek pexe bu mu tëral mu rëcc rek moo di beneen waaye mel na ni mu Yuusuf ak mbokkam ya ñu nekk ca biti Yuusuf nekk ca biir teen ba waaye xelam dal mu nekk ci jàmm ak salaam ñoom amuñu jàmm waaye ndaw si tamit noonu la mel. waaw feebar bi fi mu nekk dafa lëmbe jëmm jëpp ba ba ba jaxasoo ak deret ji mu nekk ndeysaan kenn rek moo ko mën a faj mooy yont yàlla Yuusuf ndaxte dafa feebar yoo xam ne docteur yi mënuñu ko faj nag. feebaru xol yonent rek ko koy faj nee na ko. sa njàqare gi nga nekk ak lan moo koy dindi est-ce que am naa beneen yoon pareegul nee na ko dóor ma fukki junni junni jaas jam ma fukki xeej junni xeej moo gën a oyof ci man lii nga xam ni moo nekk sama xol sama xol bi daal xaw ma kañ lay attan lii bis nee na woon sama xol nee na woon takkal Youssouf beneen xol bi dañ mi may wax lan li Youssouf sama xol bi waxoon na ma yeewal Youssouf takk ko léegi nag tëj ko bii mi may wax a ah, bàyyil Youssouf man daal li ma jaaxal mooy lan moo tax ma tëj Youssouf rek ma ngoog laaj baa ngoog kooku yaa tontu.